yaakaar naa le ministre Cheikh Mbacké wax na ko léegi le député Cheikh Mbacké wax na ko léegi nee kan moy genre genre yakarna buñ ko définir tay ji fii ci Sénégal yomb na gis parce que genre mo indi tay jigen ñi ne ci assemblée bi tok fi parce que pour la prise en compte de la, du genre dans les politiques publiques et dans le positionnement des femmes le Sénégal am na ci avancé yu c'est juste la planification

wax na ko fii ñëpp dégg nee na ñun suñu genre mooy jël lépp loo xam ne askan bi soxla na ci politique yi redistribution des richesses yi mu fexe ba góor ñi ak façon équitable pour participer au développement de notre pays pour que le Sénégal soit un pays émergent en 2035 sans discrimination où les hommes et les femmes participeront de la même manière à son développement et joueront des bénéfices de sa croissance de manière égalitaire.

góor ak jigéen ak xalé ñoko bok kon yakarna naa lolu loolu leer na nit ñi nag mënuñoo tee ba léegi wax ci genre parce que peut-être mo bi ma leen xaw déranger parce que yag nañu ko gis parce que ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants genre nous étions ci mës a direction de genre dafa mës am mais peut-être légui lañ ko duggal ci bir ba ñepp di ci wax parce que Sénégal da fay jëm kanam te tout le temps les gens se posent des questions et c'est normal aussi ci ba ci genre boobu ñu basé ba def la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre lolu moy accompagner le président dans son programme de développement pour que askan puissions ne gis ci générer des ressources ci li nga développer réew ci li nga en charge la le bien-être des familles particulièrement les femmes et les enfants ñu am yeneen question tam bu fi les violences les violences basées sur le genre dans ce programme famille et genre qui vise à renforcer l'intégration du genre dans les politiques et à lutter contre les violences basée sur le genre et améliorer le bien-être des familles défendant les violences n'ont pas leur place les violences basées sur le genre pourquoi les violences basées sur le genre que les violences aux femmes c'est à peu près la même chose parce que gens que violence violences hommes violence sur le genre donc je pense que ce niveau on a beaucoup avancé sur ce problème